بالخلق Allah Hong Kong Kingdom wala ku mu ragal lu mu ragal ak ku mu ragal ak ku mu doon nag am na koo ragal am na loo ragal am defee suñu ak Seexul Xadiim dafa am fu

nga wax na la wa min kulli wasfin hamidin hada af'alu tafdili baraaya rajaa baraaya yow saxami waaye xam nga ci bëgg rek bi ñu déggee waxaan asja rasulullah dafa nekk jàmbaar jóg xam nga lu kuy jàmbaar ragal yàlla boo xasee ragal yàlla doo doo ragal doo raglu ndax lépp loolu la ngeen bëgg a def bu ci yàlla am dara sot bu yàlla dogalee dara jar naa daw kon yàlla rek a jaral moo tax moom mu ne aussi seen Cheikh Fary ne wa sittu bi rabbil arsi zil jil zil jufi wal afwi kenn ne ko wa sittu billahi wa bil kitabi wa bin nabi Mustafa ah mu ne wa kaana asja asxan naas ahsanahum te kenn bañ a manqué kenn bañ a wopp damaa siyaare sëñ mu bisa jàng Italie mu ne ma seex ma ne ko mu ne ma ñaan day am boo ñaanee leen bi mu yàgg fii teg sa bopp bu fi bi yàggee te yàggoo fi doo bi soo ñaanee leen sëñ sa bopp soo teew sama professeur ak sa service yi àndal yëpp ñu ci ràññee suñu docteur bi docteur bi Sall sant yëpp autorité municipale premier adjoint bi la Mourane bi ak docteur Rachid ànd yëpp di leen sant di leen gërëm di sant mboolem boo koo xam ne ba jàpp gis ba léegi daf fekk sa alal wala sa doole wala sa xel wala sa xam-xam sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax rek li tax ñu def yu jar na ko ndax yéen sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nee na ñun tey bu ku li kuntum tuhibbuuna Allah fattabi'uuni yuhbibkumu Allah wa yaghfir lakum zunuubakum suñu borom nee na ku li kuntum tuhibbuuna ku li kuntum tuhibbuuna ndax ndax ba da bëgg ngeen ma bëgg leen fattabi'uuni ma topp leen ngeen sallallahu alayhi wa sallam yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum boo waxoon na bëgg leen te jéggal leen seen kon nag kooku ñu tax ñu def ko jar na ko waaw waaye moom ñu doy loo ndax xanaa fi rasulullah isatun hasana moom la ñu doy loo kon nag bés bi képp ku fi teew comme ni ko Cheikh Mamadou waxee sànq même bu dee benn jikko rek ci li wax sànq ñëpp yéen solo solo nga jëlee ndax kenn mënul baax te jëlee ñëpp yéen solo naa solo. kon nag ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di tudd ca Réha ànd ak tudd suñu mag suñu nijaay yaram moo si nag tax teew waaye ñëpp moo doon teew. ñu ngi tàmbalee suñu nuyoo ci ayima yi fi nekk imaam Yahya imaam Mouhamed imaam Baye Modou Gueye mi toog ak seen i nawaay bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare waaye di nuyu nga xam ne ñoo féete ci wàllu. gouvernement yi muy monsieur le préfet ak maire suñu bàyyi Mor Anna ngi di toog waaye nag ñu suñu xarit suñu wala rek commissaire Fall ak booleem li xam ne ñëpp ñoo fi nekk te war fi ci wàllu gouvernement bi waaye di xasal li ñoo nekk am na ab tijaan ci seen taxawaay ci seen fulla ci seen jom ci seen gëm-gëm ci seen nang wax naa fii daaw nag mag ñi la leen waroon def nañ waaye li fi des ndaw ñeeku moom mag ñi kon li war rek mooy di ñaanal ndaw ñi ndaw ñi di gën a am réussite yoo xam dañ ci kanam ndax ma fi gis ñëpp ñu ay ñu am naa étudiant kenn ku ci nekk am na ci ñoo xam ne amoon na am naa ñoom alaaka boo xam ne alaaka waxtu yi dara. dëgër loolu nag dafay am solo day taxit ñoom su ngeen leen ñaanalee ñu gën a liggéey bi gën a jëm ci kanam yàlla leen yàlla jàppale te dëgëral leen ndax jàkka yoo jëm wala jumaa yoo jëm wala pénc moo dem kër yi wala pénc ma ca mag ñem woon ko mag ñëpp faat na ndaw ñi rek dafa des ana ay may jiitu woon fii ñëpp dem na waaye nag li ñuy dem dem dem xar maata xawmun wa maa maatat makaarimuhum wa aasha xawmun wa hum inda llaahi amwaat ba nekk ni seeni makaarama ngi fi dafa jëm ko ci kaw suuf kon lii lépp suñ demee ba am ko ci ni nga waxee barka mag ñooñu la barka mag ñooñu ci la ndaw ñi mën a lii ci la fekk li ñu fekk leen kon ñooñu muy am naa ci jaar yooyu ñu ngi leen di leen encouragé bu baax a baax suñu borom gën leen di dëgëral euh, Imam Mouhamed suñu kàddu gi gudd ndax nee naa la gàmm nga gàmm gi xam naa dañuy wax tuuti rek ci jàppu gàmm gi wa innama bu'istu li utammima makaarima al-axlaaq def naa ci xutba àjjuma ji sës ci gàmm gi xutba boobu laa ci laa ci def xutba bi tamit li tax ma def ko ci mooy Thierno Mamadou Bousso maa ngi koy nuyu di ko ziar baax di ko ñaanal yàlla na suñu bàyyi mbaaw fan. dernière bourde bi def sec at mu jot mais su bàyyi Ablaye nekkee dama ko bi ma ñëwee laata daal bourde bi mu jox ma lañu saqaafiya almiya bi nga xam ne mooy waa Koskas maanaam liñ ci bind mu innamaa bu'istu li utammima makaarima al-axlaaq ma liir ko gis ci nag bu ma amal solo lool mooy azimatul xulqil xasan lana sabaa crise de yi nga xam ne mooy kulit moo nekk ci waxambaane yi tey yaa nga xam ne ñoom la ndaw ñi waroon a yor ñu dem ba ma jël cem ma jël cem boobu def ci benn xutba loolu nag mbokk yi innama bu'istu li utammima makaarima al-axlaaq yonent bi xadis boobu da koo def xasu innama bu'istu innama xasu la da ko xas li ku tam ñu makaarim al kon am na lu mu fekkoon loo xam la ak lu baax mais bi mu ñëwee yàlla dogal mu war a ci ñaar képp la ab tawxiid wal ibaadaat mooy li yàlla bi saasam doon mottali innamaa bu'istu li utammima makaarim al axlaaq yaani ab tawxiid wal ibaadaat mooy wéetal yàlla gi Oustaz Mouhamed doon wax moo di kon manque ci jamono sallallahu alayhi wa sallam doon ndax gis ngeen imam Muhammad wax na ko yàlla di yàlla kenn du yàlla loo jàpp ne yàlla du yàlla sëñ bi du yàlla yaay du yàlla baay du yàlla yàlla kenn ko yàlla koo jàpp ne yàlla nga bis dana dikk ñu la day mag baay ba ngi bàmmeel la ngi allahu alladi laa yamut kon yàlla di yàlla loolu nag yéen mu sax sax dikkee dafa am lu doon jàngale mooy ak tawxiid toujours dama koy wax damay wax daal tawhid googu ñun war nañ ci bàyyi xel doomu aadama mënut a wax doomu aadama yàlla nga kenn du yàlla ci kaw suuf sëriñ beeg donga beeg taalibe beeg bàyyi beeg yaay koo ci gis ne nag diwee baayam diwa yaay ko am na yaay bàyyi am dëgg na yàlla qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad Cheikh Bamba ne lasta bi walidin wa lasta bi walad yaa rabbi kulli walidin wa ma walad kon yàlla yàlla rek a yàlla loolu tax ñu jooju nag daa bokkal ci innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq ba war a nit ku mën a doon dafa am lu war a nekk ci yow ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragal yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu ñuy defee lu bon loo xamul ko ko wax loo moomul nag jamaan loolu mooy tax it nit day ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragal yàlla waaye bàyyi lu wax loo ma loolu ci jullit bu nekk yaa ngi ci innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq soo jógee ci loolu ñun ndaw ñi nga xam ne yàqute jukki yi fees na suñu jëmmi bopp dara waral na ko lu dund lan doon ci kaw suuf te yàlla alal ci ñu bari ñu nekk ba jëmmi jamono mu mel ne koo xawalaat indiwaat ko ci kaw suñuy jëmm. ba war a natt yi du fi jóg yii ngay gis fi jóg saxaral fasal fi barri wal baxri bi ma albaax baaxu sababu yee ci bi ma kasabat kon ñoo ko bi ma kasabat ay dinaas bari na ci lu yàlla teg jaam bi jaam bi ci boppam moo ko fàq kon a ñoo xoolaat ñu jukko yore royee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man li ma gis li ma li ma gis ci Sénégal mooy ñun ñëpp leen wax ne bëgg na rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam alaaj bari nee na walay sa nafrun bi la walay sa nafrun bi la xubbi walay sa nafrun ala xubbi bila amalin wa tabian sunnat al Cheikh Abdou min kori fii Cheikh Abdou filil ñuko dafa maandu te daata Cheikh Abdou filil ñuko daa maandu te daata li mu tekk mooy alañ bari nee na bëgg balaa am njariñ da ngay roy da ngay bëgg nit boo ko bëggee na yonent bi laa bëgg na bëgg soxna léegi léegi ci ay bëgg-bëggam ca ngay jàpp ñun ñi képp ku ci bëgg soxna léegi léegi ci ay bëgg-bëggam ci boo ci benn wala ñaar wala ñett kenn ci nekk da nga fexe di bëgg ci yow muy bëgg ci yow ba du ngeen am problème waaye garanti bi nga xam ne nag kon yow da nga ko bëgg wala roy ci moom kon nan leen delluwaat ci loolu nit nag soo ko bëggee ca jafe woowu na nga xam ne noonu la mel sa bëgg dafa des. kon sallallahu alayhi wa sallam amalaj maa li ma li ma leer bëgg ku àndut ak ku àndut ak roy du am doo jariñ dara doomu aadama bi léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom moom moom la ñu roy loo daawul jëw daawul fen daawul rambaay daawul jaxas ak bopp daawul jaxas ak tariixa daawul muuxale daawul nekk ci daawul naan ko kee nee na la kee nee na la yow la wax yow lay waxal ca yooyu yëpp mi ngi suñ biir yooyu yëpp it suñ biir mbooloo mu tas ñu baree bare ñu ne ci biir mbooloo ma ñii kontur ñii ñii ànd ak ñii ñii di wax ak ñii ñee di wax te ata sa ata ata sot nag xaraam par parloo ci mbir ko xaraamal lu par parloo am du dox diine ju di nekk bu ci par parloo amee lan ci war a dund diine ju du nekk du ne tariqa bu ci par parloo amee lan ci war a dund daan tariqa maanaam aw yoon tariqa ci jaan murid yaa taw ak ak ay ibaadaat kon am na lu doxoon war ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon fii jamono toll azimatul xulqul xasan këri si bëdoo daam ñun war nañoo taxaw ci loolu mu day ci njaboot gi ci lu mën a doon mbokk ku nekk ay juridan nan nawlante bëggante soppante wóolante te ku nekk jàpp na sa bopp na bokk waaye da ngay gis ni bokk benn ndey kër bokk tari tari bokk nangam du laale jar ñun ñëpp yonent bi sallallahu alayhi yonent bi fekk na bis nit koo xam ne saa yu ko rombee du ko mos a nuyu ci kaw suuf wala benn bis fekk na ñëwul boo xam ne danaan xëy di xëpp mbaritam ci ci buntam benn bis mu toog gis bu xëpp mbarit bi mu laajte ñu dafa feebar yonent bi sol daal lan dem seeti ko dangaa dama daa gis dama daa dama dama la laajte ñu ne ma dangaa toog ma gis ne dangaa daj sama ko ci moo tax ma ñëw seet mu ne ko ashhadu an laa ilaaha illallaah sadaqa wa sallam Muhammad abdu wa rasul mbokk yi loolu mooy ak bëgg loolu mooy ak nit loolu mooy ak ak yewa yewa yewa yewa ji bari na mana mana ji bari na maa fi nangam baal na yaa fi nangam dem kenn du yow kenn du man kenn du yow ku dul yàlla doo kenn lépp nga fi gis di tiitaroo ci kattanu suñu borom la lépp loo gis na fi tiitaroo ci kattanu kam yaakaar la te kooku moom mi dafa wax am solo dana mag ñi danoo tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba kenn ku ci nekk am ca la nga am ñoom ñëpp kenn ku ci nekk boo ubbee sa téere gis sa lu la jaaxal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Bamba kuy seen yonent bi Maam Bamba Kounta kuy seen yonent bi waaw ñun ñu dikk yaakaar leen ba noppi ba noppi ñee seen i sëriñ nekk na ñu dikk bëgg leen bëgg seen i sëriñ ba noppi bëgg am problème suñ suñ biir waaye quelque chose kon nan xoolaat suñu bopp kon nan xoolaat suñu bopp kon nag lii defar jukki yi mbokk yi mooy ñu delluwaat ci mbind mag jàngi ko xam ko bëggante soppante wóorante di dimbalante teel rek suñu ko defee li bëgg daan daan daan ko am loolu nag li li ñu koy may mooy kenn ku ci nekk la nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom mag ñi wàcc na mag ñi fi jaar billaahi wàcc na lu lu rafet ci jéem yi defal ko ci bàyyiwuñ fi benn tax tax bàyyiwuñ fi benn tilim tilim lu tilim suñ gannaaw ci ñun la waaye du ci ñoom kon nag ñun ñu wuutu ñuy tudde ay profond sa xalifa kër bàyyi yaa doon yaa fi nekk mag ñun ñu wuutu wa alal xalaf an yasuna asara salaf ñu wuutu nag sànn nga lay asalaamaaleykum wa di sant li nga xam ne ni tey jii yàlla def na bis bi ñu nekkoon fi daaw fekk fii encore ren jii di ñaan yàlla fekk ko ay déwén yu bari ak képp koo xam ne kii jullit nga ñëwoon ci biir bi bis bi yonent sallallahu alayhi wa bis bi maa ngi fi représenté. monsieur le ministre maire Gallo Ba muy bis boo xam ne bii bis bu mu xam ne bis bu mu miin la bis bu mu bëgg itam la ndax li nga xam ne lii da koo teg ci tarixa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi mooy lépp loo xam ne lii lu xew la mu taxaw fa wala mu yónnee fa loolu nag ñu ngi ànd ak conseil municipal bi nga xam ne bii. ñoo nekk ci dëkk bi di ko jàngale monsieur le préfet defe naa ne li nga wax nii tax nga délégation bi ci biir la bokk parce que yaay autorité bi nga xam ni yaa nekk ci dëkk bi représenté le président de la république te yii ñuy itam ñu nekk maire nekk fi représenté le maire nekk ci gox di ci liggéey euh, di la nuyu bu baax di nuyu itam ki nga xam ne kii moo fi nekkal sëñ bi di imam Thierno Ndiaye vraiment di ko bu baax ci nuyu gën a sell ak ñi nga xam ni ñoom la nekkal bokk ak bis bi man nag monsieur le préfet euh, ñëw naa fi ànd ak bu ma ñëwee ànd ak yooyu itam am na ñoo xam ne dama leen fi fekk ñu bokk ci délégation bi nekk ci koñ bi bu ma ci limee euh, El Hadj Cheikh Oumy Diop di conseil municipal ma fekk ko fi ñëw fi Afo Dia ku nekk xam naa li muy liggéey ci koñ bi nekk fii di conseil municipal Ablaye Diop moom itam nekk fi ci conseil municipal bi la bokk Aliou Sow yoon moom itam ñu fekk ko fi ah. Amadou Anne mii doon wax léegi nag moom itam conseil municipal moom mu nekk fi am na ñeneen ñoo xam itam ay collaborateur maire la vraiment ma gis leen fii defe naa bu ma fi nuyoo teral fi ki nga xam ni bokk na ci organisation muy Amadou Mbengue defe naa ne moom itam mi ngi fi toog Karim itam ci organisation bi wax dëgg yàlla fekk nañ ko fi yàgg nañ ko fekk itam. honorable Thierno Sy fekk nañ ko fi moom itam yàgg nañ ko fekk aussi honorable Penda Sakho itam dégg ngeen ko fi ah xam naa mënu ma lim wante gis naa fi itam Babacar Samb Fall di naa leen fi ah sëñ Abdou Diop nag li wax fi toll nii defe naa ni du bëri du am solo di la sant bu baax yooyu tam di sant suñu jaayee sëñ Modou Gueye vraiment ak ñi nga xam ne ñoom la àndal tey jii nekk ci bis bi ak waa ak soxnaam di leen sant di nuyu jigéen ñi mag ak ndaw xale yëpp fàttewuma kenn euh, sëñ Abdou maa ngi lay sant bu baax ci li ngay def ci biir dëkk bi ci xutba yi ngay def defe naa nit ñi waroon ko jàpp nga tasaare ko nit ñi di ko déglu itam aj boobu jot loolu ñu ngi lay ci sant baax parce que yeete rek la te li nga yeete nii mooy li nga wax fi tey jii kon defe naa ni buñ toogee fii li nga xam ne wax nañ ko fi ñuy sant bu baax a baax a képp koo xam ne kii yaa jataay bi may wax ne nag maire dafa wax ni lii ñu fiy def muy sant bis bii nga xam ne bis bi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bëgg na ko fekke lool nag wante yu bëri dafa am ay gàllankoor yu mën wante mu leen wax ne leen mi ngi fii bokk na ci te li ci te lii nga xam ne bii moom la ko doon def da koy yokk ak mu jot wante ko wàññi te gis na njëriñ bi te gis na ñaan yi itam yéen ko fi defal te loolu mi ngi ciy sant imaam bu baax Cerno ak ñi nga xam ne yéen fi nekk di leen sant di leen gërëm li du lislaam dafa am loo xam ne lii te jii moom am na ci dara xam na ci dara. ñaar ñu koy defal muy këru diine yi nekk fii ci Mbàkke yëpp ak feneen fi nga xam ne fii moo nekk ci booru Mbàkke lu fa mën di xaw rek dana fa taxaw nam ko daan defee yàlla def na nag dafa am loo xam ne nii euh, ñaan yi gis nañ ko bu baax a baax ne xam ne nii fan yi dëkk bi nga fi nekk dafa am loo xam ne nii ay gàllankoor yu fi mel yu fi am ñu koy sant yàlla bu baax nag muy mbënd mi Euh, ndigal suñu borom la ku ne xam ne taw bi am na ñu bëri loo xam ni gàllankoor na ko ci dëkk bi ndox mi bëri na macha allah mais dañ koy sant yàlla parce que ay xéwal rek la muy masawu nag ñi nga xam ne ñii ñoo am ay torof parce que tey jii loo xam ne ci loxoom moom moo ci war a njëkk ñi nga xam ne ñii ñoom rek la di jaale aussi ñi nga xam ne dañ fi ñàkk seen bakkan je crois loolu tam lu am solo la te bis bi day bis boo xam ne bisu ñaan la ñu ñaanal ñoom ñëpp muy wax nag waa Mbàkke ni leen am na ay réalisation yu bari yoo xam ne ñu koy def ci bi plus lu mat ay six à sept chantiers yoo xam ne dañ ko entamé loo xam ne bii mus ta am ci Mbàkke muy lu metti nag wante nag ku bëgg defar da nga yàq moo tax ñu ñaan waa Mbàkke yu mun li nga xam ne ñu ngi koy suuf muy loo xam ne ñaan sëriñ si mu ñaan àgg jàmm parce que dana metti mais suupa du yàggati dara dara lépp dana sotti muy tale yi ñuy def muy réalisation yi muy ay place yoo xam ni pour noppalukaay la muy ay théâtre bi muy ay euh, euh, centre commercial bi nga xam ne bi ñu ngi koy def muy li nga xam ne itam Croix bi yooyu yëpp mu koy def nit ñi di ci jàmbat mais xalaat nañu nag pour xar Mbàkke mu sant rek ci bëgg kon nag loolu bu amee ñu ñu rek parce que lépp dana sotti muy ñaan yàlla ngeen ñaanal ko ngeen ñaanal waa Mbàkke ñaanal Sénégal taw bii muy taw boo xam ni taw bu vraiment bànneex la te itam mu ñaanal waa Mbàkke itam. ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbënd mi ñu moytu courant bi parce que ndox mi bëri na tabax yi itam dafa am tabax yoo xam ni pour ça man ci sant monsieur le préfet ak délégation bi muy ànd parce que ñu ngi ciy ak ki nga xam ne kii mooy urbanisme muy loo xam ne nii tabax yi dafa nooy taw yu bëri na dafay gajax kon ñu sàmm ko bu baax a baax a baax a baax ba nga xam ne li nga xam ne moom la ñuy dégg mooy am ci yenn dëkk yi ñu ñaan yàlla loolu suñu borom dimbale ci di sant aussi li nga xam ne lii moom la ñuy ñi nga xam ne monsieur le préfet ñu ngi koy jàppale maire Mbacké bi mu affaire sécurité affaire sociale defe naa ni loolu yëpp ñi nga xam ne am nañ ay problème ay tolof tolof yoo xam ne ci dëkk bi la secrétaire municipal bi ak ñi nga xam ne ñoo yor dëkk bi muy la la préfecture def nañ ay recensement yoo xam ne bii maire yi dana jël ay matukaay ku mu a dimbalee ci ak dooleem fan lii dana ci jàpp jàpp boo xam ne nii mutul mat lépp man dana ci def la nga xam ne suñu kamt laaj bay daal kon loolu daal moo taxoon may wax nii lii moom la ma yóbbante woon ma ni naa ko wax muy nag di sant bu baax waa Mbàkke di sant imam di sant waa Mbàkke yi nga xam ne ñoo koy jàppale di sant itam ki nga xam ne kii mooy Amadou Anne mii muy ab conseiller ab responsable la di ko digal lu baax sant yàlla bu baax mu ñu may ñu fekke waat bis bi ndax euh, bu daaw dafa fekkoon ñuy soog a jël service te defoon nañ sax déplacement bi ci bëccëg bi ñëw ziare imam waaye jotuñu woon a teew ci cérémonie officielle donc maa ngi sant yàlla bu baax ñu may ñu fekke waat ko ren di wax rek ne ñoo ngi jël kàddu ci turu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye tamit ci turu gouvernement bi di wax tamit ne euh, monsieur le préfet Khadim Anne moo amoon yéene teewe bés bi defoon na ci sax waxtaan ak imam waaye dafa fekk dafa am fan yi xew-xew yu xew ci biir commune bu Mbacké waaye tamit ci Touba muy wàllu inondation yi te mu nekkoon ci fan yi yëpp ci xëy guddi ak bëccëg ngir soulager population bi ñoo ngi profité ci occasion bi pour masawu leen coono di wax aussi état bi moo ngi si seen ginnaaw moo ngi def kenn lay kattan pour vraiment soulager seen souffrance ñu ci liggéey liggéey bu am solo di wax rek ne bis bi dafa nekk bis bu am solo ndax ñuy jotee lettre bi le préfet du département jot na bind benn circulaire vraiment sant service yu bëri yi nga xam ne dañ ko dañ leen soxla ci organisation bi pour ñu mën a jàpp ci réussite bu ne yi donc ci wàllu sécurité ci ci yeneen secteur ñu wax rek ne xam nañu bu baax dayu bis bi loolu moo tax aussi suñu teewaay waaye aussi jàpp bu ñu si mën a jàpp rek euh, def nañ ko di wax rek ne xëy na lépp bu motul waaye li ci gën li ci ëpp solo vraiment seen service yi def nañ ko donc ñoo ngi ciy profité di leen sant di leen di wax rek ne tànk yi nga xam ne indi nañu fi tey tànk sàkku ñaan la tànk ziyaar la waaye tamit tànk mbokk di profité ci occasion bi rek di remercier aussi ñi nga xam ne gën nañ ci kàddu gën nañ fi sant imam Abdoulaye wax ay kàddu am solo. waaye tamit imaam ànd Mamadou ànd ndax euh, société bi soxla na ko comme ni nga ko waxee gis nañ ni crise des valeurs moom lu ñuy constaté la te jotaay yu mel nii am na solo lool ñu ci waxtaan ñu ci jógee ñu ci gëneeku di sant bu baax aussi Sall mi nga xam ne moo yoroon wàllu jàng yi vraiment. ànd koog sama xarit oustaz Amet Niang man dama yaakaaroon ne jàngale rek la man mais ndekete am na feneen fu mu mënee tamit ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jeexalee sama kàddu rek di sàkku ñaan ndax xam nañ ne bis bi bisu nangukaay ñaan la ndax ki nga xam ne moo waral bis bi moo tax di wax rek imaam ngeen ñaanal Sénégal ñaanal Sénégal mu nekk mu gën a am jàmm waaye tamit nga ñaanal président de la république ndax mbébét bi mu am ci réew mi yàlla may ko kàttan nit mu mën ko matale te wax aussi ñoo ngi ci nawet te ay fan yu néew rek dinañ dem ci jàppal loolu di la wax rek nga ñaanal Sénégal mais aussi ñaan ñaan yàlla nawet bi nga xam ne nii dugg nañ si ñu génn si ci jàmm lépp lu ci mel ni tamit ñu. muurloo ko waaye tamit mu barkeel donc lii daal moo nekkoon kàddu yu gàtt yoo xam ne bëggoon naa ko yëkkati ci turu préfet ci turu gouverneur waaye tamit ci turu gouvernement bi yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. yàlla nañu ko yàlla boole defal préfet maire ak ñëpp. yàlla boole. gàmmu gi ren nag mbégteem dafa ñëw. dafa gis xale yi dëkk bi. ñu jàppoo. ànd. bokk seen lépp. ñoo ko bokkoon démb. daan nañu waaye ni ñu rafetalee ren. xamoon nañu ne foofa la ñu jëm. yàlla dañoo indil koo xam ne. pour ñëpp jub. fi fi amul fooy jaar. Euh, ba am lëndëm. ba ak tooñ. kenn boobu ñu muy ni yonent bi. muy wómmal ñëpp. ci yoon boo xam ne. ci melo woo xam ne moom la fekk nit ñi. ci ji yëpp lañ ci diine. te mu yombalal bu baax. ndax yonent bu nekkoon milliardaire. ndax yonent bu nekkoon milliardaire. roy ko dana jafe. roy ko dana jafe. waaye sallallahu alayhi wa sallam. waaye sallallahu alayhi wa sallam. dana dañee. di fande di fande. nekk miskin. nekk miskin. yàlla nag. yàlla nag. yónni ko yónni ko. avant mu ko yónni. avant mu ko yónni. sëñ Laaj Malick nee na. sëñ Laaj Malick nee na. yonent bi. yonent bi. qablal kawni. qablal kawni. nabi nekk na qablal kawni lu ñuy kawni bi nekk fii nuuran di leer. kooku la ñu boole. yàlla jaarale ko ba mu baax ba mu baax. ba mu mel ni mu war a mel. ba mu wan nekk sa muur. ku nekk sa na lool. waaye nag si laaj Maalik nee na. si laaj Maalik nee na. yi yéen yéen yëpp. dañuy wan ne yonent baa ngi ñëw. dañuy wan ne yonent bi yaa ngi ñëw. mu ngi mel ne. mu ngi mel ne. kilifa buy ñëw. kilifa jóge fu sori. jóge fu sori. dëkk yëpp ñëw tase ci tase ci Mbàkke. كذا بعث الأنبياء وخلق الأخلاق بعث الأنبياء لظهوره فألم kaafatan illa kaafatan lakin defar naxu yi yëpp dafa defar naxu yi yëpp waaye ñun waaye ñun duñ mën a duñ mën a ànd ak yonent bi duñ mën a ànd ak yonent bi dañoo wékk ci suñu lu dul dañoo wékk ci suñu bopp ñett ñetti jikko ñetti jikko la ba tàggatoo ak moom. ba tàggatoo ak moom. mën a ànd ak yonent bi. mën a ànd ak yonent bi. mën a ànd ak xéewal. mën a ànd ak xéewal. mën a ànd ak yàlla. mën a ànd ak yàlla. ëllëg li mu diggee. ëllëg li mu diggee. ñu mën cee bokk. ñu mën cee bokk. kenn ku ne ci ñun. kenn ku ne ci ñun. da ngay bàyyi sa bànneex. da nga bàyyi sa bànneex alxawa. da ngay bàyyi sa bànneex. da ngay bàyyi sa alxawa. wan naf. wan naf. da ngay bàyyi da ngay bàyyi seetaan xeex ak sa bakkan. yonent bi sallallahu alayhi wa na noonu mooy sunna. noonu mooy sunna. yoo boo yooyu boo amee te réew yonent bi ci ci na mu ko defee woon. yoo am toppoo sunna. toppoo sunna. toppoo yoonu jëm yoonu jëm ci yàlla. ak bi jëm yonent bi dee na. yonent bi dee na. na mu dëjee woon. mais mu dëj na mu dëjee woon. na mu dëjee woon. na mu ko defee woon. na mu ko defee woon. na nga def ko noonu. sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi ngénte na. yonent bi ngénte na. booy ngénte. booy ngénte. nga laaj. nga laaj. borom xam-xam yi borom xam-xam yi. nan la ngénte woon. waaye xamul ñu def. waaye xamul ñu def. màggal mi ci koñ bi. màggal mi ci koñ bi. moom la ñuy wooye. moom la ñuy wooye mu ñëw. indi ndox indi yi muy indi. sang sang xale. bàyyi ci sunna yonent bi. bàyyi ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla nag. yàlla nag. ñaar lay àtte. ñaar lay àtte. bi at bi at bi àll bi ak maandoom. ak ngëneel la. بعدله وفضله sami diyaasa. kooku mu mu mu baaxee. ku mu baaxee. da ngay wekk yii. da ngay wekk yii. jikko yu ñaaw yi. jikko yu ñaaw yi. mën nga koo dindi sa bopp. mën nga koo dindi sa bopp. da nga koy dindi. da nga koy dindi. yàlla baaxee la yàlla baaxee la. nga yegg ci moom nga yegg ci moom. ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bu ko defee bu ko defee. ëllëg dafa jege. mooy génnaat génnaat dina. waaye nag fépp. waaye nag képp ku topp yonent bi fii bu ngeen ko toppee ngeen ngeen tuddiw bu ngeen ko toppee nag kon bu ngeen saa yu yu jotee yàlla bu mu bu mu gaaw bu waa ji génne àdduna bu waa ji génne àdduna du gis dara lu koy métti déedéet amul amul tension bët yu métti amu fa tànk yu métti amu fa ordonnance amu fa dépasse amu amul àjjana. mag sax amul. màggat sax amul. bu jigéen mosoon naa ñëw ci Rasulullah. mu ne ko mu ne ko yaa Rasulullah. ndax màggat dana dugg àjjana. ma ma ma yëf yi nag jaaxal soxna si lool mu ne booy dugg àjjana ci aas bi gën a neex ci nit foofu ngay def xolli foo xam doo ko fàtte bu la neexee football bu la neexee jàngale bu la neexee yéeg bu la neexee daw aas boobu la ñuy delloo nga nekk foofu dug doole dugal àjjana doo fa gis lu la naqari doo fa gis lu la naqari kenn du la sànni xel kenn du la gaaruwaale du tàng ci yow. du tàng ci yow. du sedd ci yow du sedd ci yow. waaye la ca gën a neex. waaye la ca gën a neex. foofu abadan doo fa génn. waaw foofu lay doon. foofu daal di dina ci yàq. ñan ñoo ko yàq ñan ñoo ko yàq. ñaan ak yonent bi sa. ndax yàlla ak yonent bi yàq na. wala ndax yàlla ak yonent bi yàq nañu. defal na ko lépp. defal na ko lépp. bu ne nit ñi nag. bu ne nit ñi nag. looy leen kii. looy leen kii. du milliardaire. du doomi borom alal. du doomi borom alal. kon kooka yomb naa roy. mooy borom guddi gi. mooy nag. ñun kontaan nañu lool. kontaan nañu lool. xam naa ne guddi soxla yi bëri na. waaye guddi gi jar na ko. waaye guddi gi jar na ko. ndax bi la bëgg. ndax yonent la nit ñi. soxlawul dara soxlawul dara. amul bu amul ah bëggul àlli yi. déedéet boo bëggee yonent bi rek mu bëgg la. waaye am na borom xam-xam yi waxoon fi sànq. waaye am na ñu waxoon fi sànq. nee na boo bëggee yonent bi. am na ay mandat. li ci gën a mag. nga jëfandikoo sunna bi. ci lépp looy def say ngénte say ngénte say jéeg euh, lépp lépp ku ñëw ku ñëw. séeréer beeg séeréer beeg tukulóor beeg ñoo bokk aada ñoo bokk aada waaye boo ñëwee waaye boo ñëwee tukulóor muy jàpp aada tukulóor muy jàpp aada séeréer mu ngi jàpp aada ñoom ñaar ñëpp dañ ko waroon a bàyyi fekk si nañ ko sallallahu alayhi wa sallam mu nekk lañ njëriñ kon nag yàlla sonn ngeen jaral na leen euh, yàlla yàlla defal bañ aaju ndax yonent bi mooy faj aaju mooy faj aaju boo bëggee xew. boo bëggee xew. te fo te doo xew yi. boo bëggee xew te doo xew yi. àndal ak yonent bi. dama jël suñu wax yi. Omar nit ñi naka sànq. waxoon naa ko sànq. ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. yàlla dinañ xiir ci yonent bi. yàlla dinañ xiir ci yonent bi. xam nga bu fekkee ni. bu fekkee. magam jëm. magam jëm. bàyyi na soxlaam yëpp. bàyyi na soxlaam yëpp. booy yonent. booy yonent dafa xam kan mooy yonent. dafa xam kuy yonent. sallallahu alayhi wa sallam. muy Cheikh Ahmad Tidiane. Cheikh Ahmad Tidiane. radiyallahu taala anhu. wasifa. wasifa. yonent li mu yonent. li mu yonent bi la noonu. salaatu faati. bu ci noppee. mën na safrullah. laazima alladi. dafa bakkaat. nga julli ci yonent bi. nga julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. laa ilaaha illallah. téeméer. téeméer. nga seet wecc nga seet wecc indi jaw xaaral indi jaw xaaral jaw xaaral mooy lan jaw xaaral mooy lan fukk ak ñaar fukk ak la ak yow moom la tubaab moom la tubaab di wax du bëri douzième du bëri ko sànni ci ko sànni ci bato doo ko fekk ci mbedd muy jaw xaaral kamal jaw xaaral kamal nag lu lu muy nuru mooy koo xam ne euh, dafa am xaalis bu bëri am judd bu bu rafet ay géwél yu juddoo. man ko lool. man ko lool. di ko baax kon loo fa amul sa moo la ko xañ. jërë ngeen jëf kontaan na. lépp li li li li mën a fay fayee. mooy jéem a leen donc ngeen yóbbaale tey ak aajo yu faju. aajo yu faju. ànd ak wér ànd ak tal ànd ak barke waaye dañ doon séntu ci dëkk bi. léegi nag dëkk bi ci dëkk moom. daanaka am nañu. am nañu daanaka. ñëpp ànd nañu. ñëpp ànd nañu. benn jotaay. benn jotaay. ngeen ko. loolu xam ngeen ko. toujours. ak kii bu boo génnee. boo génnee. bitim réew. bitim réew. da nga am xaalis. da nga am xaalis waaye doo leen ñee. waaye doo leen ñee. comme Sénégal comme Sénégal yi. comme sutura ngi coono boo xam ne. coono boo xam ne. feeñul ci kër. feeñul ci lekk à lekk gi. feeñul fenn. Sénégal la nekk. muy xëy muy xëy je pense tabarfakal je pense li yàlla am doy na waaye boo ñibbee këram waaye boo ñibbee këram da nga fekk añ bu baax baax almasa loolu Sénégal loolu Sénégal la baaxu yàlla la baaxu yàlla la ak sopp yonent ak sopp yonent bi sala loolu yàlla na yàlla doole yàlla na yàlla doole eh, ñii woy yonent ñii woy yonent xeebuñu dërëm xeebuñu dërëm boo def ci yonent boo def ci yonent waaye sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa nee na وكل من أنفق في مولده مصرف ولو بغير استرف ولو بقدر ولو بقدر فإنه كما حضر يوم هنين ويوم بدر خير الولاء دق الأسكار فمن تعامل حيئا ومن يده قد قرأ مبجلا فقد بأ خيرات أهل المدينة وأما وأما سالم الدور إمام وخلقه te du xew yi kenn du wax bàyyi naa jàng kenn du ñu wax mag du ñu wax bàyyi jàng yi doo ko bàyyi du la bàyyi waaye bu dee baax maal wala ñu góor bu yàggee nga bàyyi ko wala mu bàyyi la wala ñu la bàyyi àdduna mu faj àdduna ko faj bëgg yéen bi rek moo ko mën a faj lépp daal ko jaarale ko ci géej yu bëri topp leen ci la bonne place bu ngeen ko toppee. bu ngeen ko toppee. dara du mag. dara du mag. dara bi euh, occasion na ci tuuti. occasion na tuuti. ndax euh, sëy. sëy. dañ ko limité. dañ ko limité. ruubu diinaar lañ ko. ruubu diinaar. góora. góora. nga xaaj ko ñeent. xaaj ko ñeent xaaj. ñeenteel ñeenteel bi mooy ca. mooy ca donte mooy lu gën a. donte mooy aqal sadaq. waaye léegi. waaye léegi. xale bu góor bu gisee ku mu bëgg. xale bu góor bu gisee ku mu bëgg. ñu bëggant ñu bëggant. ñu wax ko mag ñu wax ko mag. yaay ji danaan yaay ji danaan. xaaral ma wax ko bàjjen xaaral ma wax ko bàjjen. alay sago alay sago foo jaar fu ne foo jaar fu ne. da nga jënd li ñuy déglu wu ya. téléphone per ah. iPhone. iPhone. man téléphone dong laay am. waaw. nga boole ko 500000. nga boole ko 500000. jox ko xale bu jigéen jox ko xale bu jigéen. man mii laajte dañ ko lekk. man man la sax dafa fekk ko lekk. xam lu ñu waroon a. dañoo njëkk lu ñu a mujj. xam bu ko xale bi amee. bu ko xamee xale bi amee. bu ko indi soxna. bu ko indi soxna. bu ko ko dundal. bu ko ko dundal. dañ koo war a ko war a bàyyeeg loola. ba soxna si fekk ko foofu. ba soxna si fekk ko fa loola. ñu yaxanal ko. ñu yaxanal ko. man koo dund. man koo mu nekk. waaye léeg-léeg nga gis. waaye léeg-léeg nga gis. ñëw ñëw la mu indi la mu indi mënut a jàpp portable mënut a jàpp portable wala téeméer bi ñu ñu ne ko tukkiwaatal ba beneen yoon mooy ñiy dem ci gaal dara ko sunu pour mu xasaale ci ne pour mu xasaale boo xam ne mënoon naa ñàkk. waaw leeralal ko dinaar bi ñaata la. ko dinaar. mooy ñaar nga am soxna. léegi nag da nga yëpp da nga laaj bi rek foofu di laaj. vingt six mille. ñu laaj la portable. ñu laaj la portable. iPhone iPhone iPhone. xam nga loolu baax. xam nga loolu baax. day tax xale bi. day tax xale bi. il faut mu wuti. il faut mu wuti. ñooy dem ci gaal bi ñooy dem ci gaal bi. yaay jéeg bàyyi yaay jéeg bàjjen. yaay jéeg bàjjen. yàlla def nañ duma. parce que yàq nañ ko bëri. ndax bi yàq nañ ko kuyde ba pare ino fafde indinanen ko loola te kiiɗo ko manki har len tuuti rek ñu yaxanal ñu jóg ñu jóg soxnaam ñu ànd ànd bi siblisé bu baax ku yàlla gërëm jàng faati ñu ñaan ñu ñu dellu si fi xel